loolu sax maa ngi gis maa ngi gis Barthélemy am na normal tànk bu mu am. Euh, gis naa président Macky Sall génn mais c'est mais c'est normal. ba pare xam nga euh, man la may wax tout le temps ne ñun euh, Sénégal suñu situation bu grave bi ne. imagine toi yow askan wi nee naa ña fa nekk ñëpp kenn kenn su ñoom gëmul mu sell mi ñoom ñëpp ñu ngi toog espérer mu sell mi ñu ne ko ilal li xaar. ba ñu ba Pastefien yi Sonko si boobu wax na nag nee na Pastefien yi émotion la demee oui ngi dénoncé nag depuis loolu ñu mun def nee nañuy sóob gëmuñu ci dara fi ñu toll ñi ngi es euh, euh, mooy ñoom ñëpp second tour ba amee ñu dem nekk ay ministre nekk ay mais ndax participation wu Khalifa si dialogue bi waroon na jot coow li yëpp parce que Khalifa il a été clair dafa dem pour négocier. mais ñoom dañoo xamul xam nga ñoom ñoom ñoom mu sell mi bu amoon tuuti maturité et xam nga Moussa li ma gëm nag mooy Moussa Elmi dépassé na Pastef bu yàgg mm. fi ñu toll nii waa nekkatu ci ay yëfu Pastef de moom day simili nii rek mais Moussa ñeneen ñoo ko yor ay Pastef yoratuñ ko waaye bu doon am na tuuti maturité tuuti intelligence politique day waaxul nank dem toog ci dialogue bee lijjanti kaawam defu ko affaire am la mais F24 damay bañ sa yëf jeex te F24 waxuma ci euh, F24 man euh, laa bëgg ñu ñu jàmm. ñoom ñëpp. woote nañ ay manifestations je pense. Euh, euh, ñoom ñëpp. ba le 18 juin. ñoom ñëpp ay politiciens lañu dañuy politique euh, mu sell mi la ñu àndal société civile amatul Sénégal loolu c'est la vérité c'est le c'est le lieu pour moi ma ma ma ma ma ma woowaat. ñaaxal société civile am na Sénégal nag ay. Sénégal non non amul parce que xam nga xam nga amu fi. mënuloo fi am. les les les Aliou Tine. waaw laaj ma wax la non yow yow da ngaa bëgg. yow da bëgg ay wax non oui da ngaa bëgg ay wax xam nga kaa wax la waa xaaral wax la waa sama euh, euh, euh, professeur la moo ma yoroon esthétique des genres fac lettres mais Alioune wax dëgg yàlla j'ai beaucoup de respect pour lui mais honnêtement Sonko la faral xam nga ne société civile dafa mel comme ñun journaliste eh, bu xasee mais c'est la vérité mais du ko assumé waaw moom laa dama la ne xam nga man tey am naa chance boo xam ne man tey wax dëgg yàlla euh, ñëpp xam nañ ne sawar ma ci yëfu Sonko mais xam nga man ku wax sa yàlla kuy wax dëgg rek mënoo ne Aïssatou Diop Faye fii la far man faroo maa kee sama laa faraat waaye Aliou Sonko Aliou Aliou Aliou euh, Tine <laughs> mais euh, société civile mooy arbitre te loolu c'est c'est le drame du Sénégal actuel moo yëpp mooy Euh, ñoom Ablaye Wade dafa leen yàgg jiiñ ne ay politiciens encagoulé leen mais ci nguur Macky Sall la feeñee ñoom ñëpp euh, Alioune xool ko actuellement ñu muy mëne tout ce qu'il dit c'est en faveur de Sonko euh, kële ñu waa F24 ña fa dajaloo ñëpp bañ nañ ko ba F24 sans Sonko xam nga du am sens F24 bu ci Pastef génnee F24 amul sens ñoom ñëpp ay politiciens encagoulé lañu ñeneen ñi yeneen yeneen société civile yi ña nga ca ñoom ñëpp ñu ngi ci ay ministre ay ay ay ay organisme de l'État dafa jot salaire waa léegi ñooñu fan la ñuy crédible ñii ñi ngi ànd ak Macky la ñii ñi ngi ànd ak Sonko mais léegi fan la ñuy crédible dañu woon dëgg man daal euh, euh, fii benn société civile moo fi am ma ma Mamataar Gueye Jamra Mamataar Gueye Jamra Mamataar laay waxal situation bii ñu nekkee dégg naa ay waane naan na na na Macky Sall discuter ak Sonko lu ñu discuter ak Sonko lan la ñuy wax ak Sonko Sonko nga xam normalement suba dafa war a yeewu ji. Euh, Cap Manuel tamit Pierre Atepa bu moom amoon na ordonnance pour dem seeti ji Sonko dem na gisee ak moom mais nag. loolu nag lu ñu war a lijjanti la parce que xam nga lu ma jaaxal bëgg na ñoom moog Macky Sall ñu toog waxtaan. waaw mais man xam nga lu ma jaaxal waaw mais man xam nga lu ma mais man foofu dafa am incohérence ak incongruité yu doy waar. parce que euh, Sonko euh, yow gis na jeudi bi ñu ni xaw ma lan protocole am boobu. moo doon mm-hmm. dem jibi gay njaay dematu fa kenn mënu faa dem euh, dégg nga Atepa nee na dafa am autorisation exceptionnelle bu def kan moo ko jox ba loolu question man yàgg naa wax ne Sonko ñenn ci avocat mi tam nee nañ Atepa kenn ko gis moo tax ma ne la Atepa li mu wax fan la ko teg benn de deuxièmement gisante naa ak Sonko kan moo ko jox autorisation kon état bi ñoo ko jox léegi après si revient nous dire que bi ko jox autorisation pour mu dem gisi ji Sonko xam nga foogu mën nga xalaat ne ay ay ay négociation dara moo fa am léegi bu nee moom dafa génn ci sonkoo euh, te Macky Sall nangu ko recevoir mais tout ça c'est mais mais mais foutaise la donc il faut qu'on arrête. se rappelle ni Pastef defoon nañu communiqué pour pour c'est-à-dire. Euh, pour pour mais mais mais mais mais weddi mais mais même la parce que dañoo waroon wax kaa nommément ne Atepa gisul Sonko ni génn ne euh, jéem a toroxal Idrissa Seck mais ils ont la même chose. parallélisme des formes daani Atépa li mu wax du dëgg Sonko recevoir ko nangam mais Atépa tam li mu wax na mais nañu leeral fan la ko teg te et puis aussi ku ne xam na li Atépa sekk ak Sonko mais li ma bëgg a wax mooy fii Macky Sall il n'a pas à dialoguer avec Ousmane Sonko. d'accord weesu nañu loolu. oui ah, léegi Aïssatou laaj bu mujj bi gis-gis wala boog euh, ndax ànd nga ci ndogal bi nga xamante ni xalif général des Mourides jël na ko ci Touba interdire bépp activité politique. parce que nag xalif généraux dañoo sonn Sonko armée saagakat yi mu yor yàq nañ leen melelaan fii Sénégal Touba mooy deuxième euh, euh, centre électoral bu gën a mag fii ku gañe Touba yow daanaka presque yow sa bamba naat na loolay dëgg xool Touba dernièrement la fa xew lépp ci waa Pastef fii mais sëñ muntaxaa kilifa la mënuma ko tëkkaleeg président Macky Sall waaye président Macky Sall j'aurais bien aimé mu am courage yu muntaxaa régler dëkk bi sëñ Mountakha wax na dëgg dañu arrêté yëf ndax ndax tey nii euh, chaque jour nga dégg saagakatam yi li Aïssata Tall war a def dem porter plainte ñee chaque jour nga dégg saagakatam yi te te bu ñu wax sëñ Mountakha duñu sax duñu wax sax sëriñ bi trouble lañu jaar directement wax fa yàq ko lu mel ne mel naan parce que ñoom fi ñu toll seen noon mooy xalif généraux yi na dañ jàpp ne xalif généraux yi ils sont complices euh, du président Macky Sall dama ci ànd te su ma sañoon xalif généraux yu bari nañu am euh, nañu nañu topp si sëñ Mountakha li mu def pour ñu nee naa ñëpp dañoo war a àndandoo barrer la route à Sonko à son projet FUME dont on ne sait rien du tout à part que tas dëkk bi la bëgg ak toog par force ci président te nag du noonu bale bee du du fa toogee noonu par force ku wax Aïssatou wax Walfadjri forcément mhm. mënuñu fi ñëw ba te duñ na am aussi sa gis-gis par rapport ak. bëgguma ci woon wax nag. mais non loolu mënut a ñàkk <laughs> bëgguma ci woon wax. ñu coupé euh, ko njëkk euh, ñu euh, ngi jàpp ni Walfadjri wala woon yegg si ba di am ay cagnotte ñenn ñi ànd nañ ci ni injustice la ñuy dund yow ban li ñuy dund. waaw bu ne <laughs> parce que wax naa ne Walfadjri moom su ma su mënulee wax. Euh, lu rafet moo tax sama xalaat dama ko ci wax carrément parce que euh, Walfadjri fa laa bokk man euh, te ku ne xam na sama diggante digganteeg Walfadjri Cheikh Niass sama rakk la te duma ci wax nag lu sori waaye dama mën a damay wax rek te waxoon naa ko defe naa si micro la dernière fois dama koy répété waat mooy man daal Cheikh Niass dama koy ñaan sama rakk muy xale bu yaru xale bu baax xale bu am jom wax dëgg yàlla maa ngi leen di masawu Euh, ci li leen dal ndax kenn yéenewu leen ko waaye euh, damaa bëgg cheikh ci boppam euh, mu bañ a déglu ñi jël ñi ko jël en otage na fàttaliku papaam na fàttaliku legu pàppam ñii di wax ñii ñëpp majeure partie bi xamuñu dëggantaan papaam te Walfadjri mérité wul lii Walfadjri dafay équilibré xam nga tey média boo demee bañ naan la fii nga bokk y a un problème bu ñu demee ba nga xam ne tey jii ña fa nekk majeure partie bi bu ñuy wax man loolu ñi fa nekk nii di wax walaay lazim gëm naa ne Sidy Lamine bu doon dund ba tey du ñu fa xëy di wax te du leen bàyyi ñuy wax yii ñuy wax ndax jël lépp jël wal Walfadjri lépp féetale ko benn nit du matin au soir nit boobu rek lañuy defendre di attaquer ñenn ñi loolu erreur la beneen bi mooy man wax dëgg yàlla ah gëm naa ne parce que ñun Euh, nag Walfadjri lañu bokk ñu defe naa ne kenn mënul naataabale suñu bokk Walfadjri te gëm naa ne Sidy Lamine ñas jaar nañu fu ne nag moom dund nañu lu ne Walfadjri te mësuñoo onk Sidy Lamine moom lu ma leer wallaay lazim gëw ma ne naa ci wax baakaar de gëw ne naa ci am baakaar mais Sidy Lamine bu doon dund ba tey du nangu ket ndax ket moom man de ñaanuma yàlla man mii rek kese toll foo xamante ni damay ket man gii ma nu am yi mais ket lee mënoon ndax dafa yàgg fii la yalwaan ba am oto kon xam nga ñoom bu ñu demee di nangu di di di di di lang langaamu ci gii ñoom ñoom nañu bàyyi Guy Marius gis nga euh, sonk kii euh, Cheikh ñas lépp lu ko dal Guy Marius mii bokk euh, soriwu ko sëgg ci noppam bii dégg naa nag am na fa ay relais moom gii Marius damay bañ a dugg ci vie privée jàmbur waaye Guy Marius loolu la leen mën a conseiller ket ndax moom lépp lu mu am ci àddina yalwaan moo ko tàllal ndax sénégalais yi jooytu ñaari ginaar bu ñuy xeex mu dugg ñetteel leen ngatte maa li non ket bi d'accordu ma ci ket bi d'accordu ma ci ket bi man ni ma d'accord mooy ket bi pourtant mu ngi yéeg de xalif général kere jox na leen juróomi million waaw mais ket daal ñu ngi sax dem naan Wally Seck joxu leen 20 millions waaw mais xam nga loolu dafa ñaaw xam nga xam nga man pour man amoon nañ 30 millions waaw xam nga man man pour man waxu xaalis yi dafa ñaaw Bougane waaw ah, euh, euh, man man man wax xaalis dafa dafa ñaaw si Lamine Niass euh, bàyyi na fi ay milliards liggéey na ay milliards waaye lu mu gën a liggéey moo gën a garaaw mooy ñun ñii moo ñu jox carrière ak ñeneen ak ñeneen. xam nga loolu mais tamit choix su fekkee waaw mais mais si on a toujours le choix mais xam nga xam nga ban choix moo important c'est celui de la dignité te si Lamine lool la yar nit ñi mais di def ay ket di di di di di ubbi ay kii ay collecte ak affaire yooyu man loolu mosuma gis ma jaar di ko def si Sénégal. te euh, lu mel ne Walfadjri deuxième euh, télévision privée du Sénégal euh, le deuxième de presse privé du Sénégal après Sud Communication Siré Lamine Niass liggéey fi lu mu fi liggéey bu doon dund ba tey kenn du ko ketal na musul def ket musul tàllal loxo musul ñaan man nag li may fu fi may jeexalee rek ci Walfadjri saa ma dugg ci ay détails ndax comme ni ma wax rek man Cheikh Niass laay waxal damay ñaan Cheikh mu déglu ma mu dégg ma surtout mooy na raxas këram gi Cheikh bu ko kenn di ñax muy xeex ak état xale bu tuuti la Sid Lamine ñas papaam. gersa gersa la waaw Sid Sid Lamine Niass loolu yëpp da ko ko wax loo Sid Lamine Niass papaam sama papa euh, kenn dàq ko xeex ci àddina waaye day xeex ak intelligence euh, moom euh, Cheikh xale la paa yi ko wër ak ñi ko ñeneen ñi ko wër nga xam ne yeneen intérêt la ñuy dox yu dul intérêt bu mu leen déglu na déglu papaam na fàttaliku papaam na fàttaliku ne lii saison son legs mu war ko joxe moom doomoom ak ay jarbaatam bu mu nangu ay jaamur yàlla yoo xam ne salaire ñoo ko boole ko te xëy na amaana ñu ngi jël yeneen salaire ñu ngi am yeneen motivation ñu ñëw jël ko en otage jàpp jël Walfadjri daf ko instrument daf ko uti de propagande et de xeexukaay ak de dóorekaay moom Sidy Lamine Niasse moo doon wax benn kàddu te ku ko wax ci moom nga ko déggee moo wax ne Walfajri du lebukaayu bor du fayukaayu bor kon Cheikh ñas amul droit toog jël Walfajri bii di bàyyi ay nit di ci leb bor di ci fay bor. ba pare ñëw di ko jël ko en otage di yàq euh, ADN Walfajri. d'accord c'est un waxtaan bi <laughs> ani fan ngay tàggatoowee eh, vraiment di di di la di la di la remercier ci dalal bi ñu dalal. waaw di fi may tàggatoowee eh, ginnaaw ba ma remercier Penda sama rakk fi may tàggatoowee rek mooy fa ma ubbee man émission bi tey yëpp en réalité Macky laa ko jagleel mm. mooy nañu jàppale. Euh, yëngal teel yëngal gouvernement moom bi ñi nga xam ne dañu ànd ak moom di di saboote gëmuñu ko Macky Sall république fi ñu toll ñu taluñu ay troisième nàngam nangam ñu li ñu tal mooy sécuriser réew mi euh, lijjanti na restaurer la république ñii mu àndal nga xam ne ñu ngi koy yàqal ñii mu nomee nga xam ne faalewu ñu dara ñu ngi làqatu nëbbatu di lijjanteeg ci suuf ak mu mu sell mi espérer ne mooy toog na leen kat yi ñoom ñëpp dàq leen jël fi ay xale yu ndaw ñu jàkkaalu ñoom da wàcc si terrain bi am na ay xale yu ko mën a xeexal na leen dugal ci biir paa yu tas yeeg maire yu orangeant yi nga xam ne amuñu benn njariñ tàppet lañu yambar lañu ay ragal lañu leen génn ci biti ñu jàkkaar jël ay armée ñu jàkkaarloog euh, ñii euh, ñoom euh, ay xaw ma El Malick xaw ma nu waa ji yor seen ki dañ takk ko tànk bi kooku benn yoon dañ ko war loxo moo noon na nañ ko takkal tànk nañ ko takkal loxo dégg nga kii nu tudd mooy mooy seen porte parole ba parce que seen porte parole façon yooyu nañ ko na wut moom Macky Sall utal na Guy Marius Koura Macky na utal ñee ñoom ñëpp na la utal fee ay ay ay ay ay ay xale yu ay xale bandi dégg nga ne ñu ñu jëw jàkkaarloog ñoom dafanteeg ñoom mais ñii dañoo ragal ministre yi Antoine Diome je l'aimais sama sama sama sama xarit waaye waaye waaye dafa tubaabe ñoom Antoine Diome dañoo tubaabe ñoom Ismaïla Madior Faye ñu ay ñoom ñëpp ñoo yam daal ñuy façon yooyu. ay ay ay ay Sidiki Kaba ak yooyu ferasuñu na jël ay xale yu feras na jël ay Lat jóob ay Pa Modou Fall dégg nga ay euh, kii euh, xale yii ñoom ñu tudd sax euh, indiwaat ñoom Moustapha Diakhaté ñoo ñu lay indi ñooñu dóor ay bazooka xale yu ndaw yi lépp xale koy def non non non loolu non non non dama non non Macky Sall dégg ko ma na ma ko xale daggal yow boo demee daggal ma ko <laughs> daggal ma ko lii nga ni Macky Sall Aïssatou Diop Fall nee na nga dàq sa gouvernement bi daq DG yambar yi nga yor tappet yi nga yor dàq leen jël ay xale yu féroce na jël ay xale yu féroce jël leen ñu dem defanteeg ñoom El Malick yee ba beneen kii bi dépp benn député bu ñàkk xorom tamay ànd ak sant Fall Abass Fall ku ëppal ko nga xam ne boo xool xam ne tàppet la dañu lay laam te ay tàppet lañu loo xam ne na jël ñoom Moustapha Diakhaté dugal ñu ne napp ñu te bu de bu bal tàqe ñu daw ñoo dama jaaxle te mu sell mi gën a tàppe yooyu mu sell mi mu sell mi moo gën a tàppet ñëpp gisoo keroog bañ ko bañ ko dugalee xoola mu ni muy yox yox tàppet la xoola du résister Ousmane Sonko gën a tàppet kaay lañu tàppet du résister du yuuxu du xataraay du xiiru waaw mais nag day day dem toog bi xoolal bu ko naan waaw euh, bu leen def bu leen ragal dara don de soi te moo gën tàppet ñëpp mooy président tàppet Macky dimbali ñu nga dàqal ñu suñu ministre yi non non sama xol dafa tàng waxtu bi jeex na tàkk non nañ donc ça a été appelé tey moom fu mu ne non tey dama sonn waaw tey tey moom tey moom dama woon takk sama dëgg ne sax dafa <laughs> donc di la bu baax non benn maa ngi lay gërëm bu baax sama rakk ji di gërëm mm-hmm. sama doom yi mm-hmm. ah di di di gërëm. mu tudd gërëm wala Sadex ci caméra montage. Sadex oui ak Mamadou.